maître Ciré Clédor lii maa ngi lay nuyu. ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi tey alors metre yow danga yëkkati ab euh, càkkutéef euh, jëmee ko ci euh, njiitu réew mi ngir ñu daal di teggi loxo ñi nekk ci kaso yi bàyyi leen ñu génn loolu nga ne jamonoy coronavirus bi moo ko laaj ndax mën nga ñu expliquer dëgg-dëgg sa idée boobu. loolu ci ma ko teg d'abord ci yërmande la ndax tey jii fa yor sa jëkkër wala nga yor fa sa jabar. wala nga yor fa sa doom yaakaar naa ne euh, yaa ngi ci fitna boo sañoon mu génn foofu ñëw ci sa lekk te ñëpp xam nañ ne réeréewu ñu mbir nekk kaso yi la fa nekk jéggi na dayo tey jii bu fekkee ne jàngoro bi dugg na fa yaakaaruma ko mu am ko rek bi ñu ñu téye foofu di ñi nga xam ne ñoo leen di kaar kon boog yërmande war nañ koo mën a doxal ndax situation bi situation yërmande ku ci ne yaa ngi sa bopp nañu baal ñeneen ñi seeni góom ñu bàyyi leen maanaam def ci ñoom yërmande euh, léegi bu fekkee loolu weesu nañu nekk kaso dañoo am ay droit droit yooyu tey ji kenn mënu koo respecté set bi nga xam ne war nañ koo set mënuñu koo set ci biir kaso bi lekk bi nga xam ne que war nañ koo mën a lekk nga xam ne dafa baax ci yaram mënuñu koo lekk ci biir kaso bi dégg nga bon léegi fi ñuy tëdd sax dafa jéggi dayo comme ay sardine loolu dëgg la boo xam ne que nit ñi nañ ci teg nañ ci duut baara baaraamu tuuma boo loolu lépp nag su fekkee nag agsi nañu foo xam ne que adduna bi yëpp addina bi yëpp ñu ngi woote ci nit ñi jàppalante nit ñi yërëmante nit ñi dimbalante lu tax ñooñu duñ leen dërëm duñ leen dimbali ñu bëri juumte moo leen fa dugal ñu bëri erreur moo leen fa dugal te it seen dañoo am ay droit droit yi moom moo di ñi nga xam ne tey jii ñoo ëpp mooy ñi nga xam ne dañ leen di enquête mais ki ñuy enquête ñu wax ne que moo def wala deful ñu wax ne dinañ ko daan wala duñ ko daan mënuñu wax ne lañ koy daan xëy na ka koy daan du ci def yërmande maanaam le sursis wala du ko ci def kon tey jii bu fekkee ne li leen jàpp bàyyi leen foofu bàyyiwuñ leen kooku dafa mel ni que dañ leen condamné déjà Hmm. kon kooku seen violation droit la moom moo di dañ leen condamné te fekk atteeguñ leen ñaareel bi moom moo di yodd yoon dafa nekk képp koo xam ne jàpp nañ la ci anam yu yu yu gàtt da nga war a jàkkaarloog ki lay enquête wala ki lay àtte tey jii gis nañ ne que juge d'instruction yi convoqué convoqué tey gu ñu kenn dégg nga kon boog enquête yëpp taxaw bon. Euh, ñi nga xam ne dañuy àtte it gis nañ ne que audience yi dañ koy renvoyé dañ koy dàq maanaam mu mënuñoo àtte dégg nga condition yooyu nag bu fekkee ne am na kon loolu wane ne que droit boobu nga xam ne que Sénégal daf ko war a respecté te mu signé ko maanaam euh, maanaam addina bi yëpp mu di ay convention Sénégal du ko mën a respecté te it gis nañ ne Sénégal lu fi gën a yomb mooy jàpp ne jàpp yomb na lool. bàyyi nag jafe na lool gis nañu ko dugg kaso pour nga génn ah foog yàlla jàpp ci wante bu fekkee nag léegi nan la tuddati def nga dara ñu war laa bàyyi enquête la te jaru ko sax ñu yóbbu la biir kaso ba pare nag bu fekkee nag benn la ñu ne jum ni nga def loolu nag ñu ne politique pénale la bon léegi loolu lépp dafa wane que ne tey jii ah ñu nekk kaso seen famille yi nekk ci fii ñu teg aussi seen famille fitna maanaam ñu ngi violer seen droit famille parce que nit war nañ ko mën a mun war nañ ko mën a jàpp te fekk njabootam du nekk ci fitna mais tey ji képp ku ñu jàpp sa njaboot mu ngi ci fitna parce que danaan kii de xëy na dootuma gisati sama doom wala dootuma gisati sama jëkkër wala dootuma gisati sama jabar hmm. kon fitna boobu it yoon da koo dàq nit ki fitna ba nga ko war a teg ne war na mën a yem ci boppam hmm. wante war nañu fexe ba du maanaam law di dem ci bopp maanaam euh, euh, njabootam wala ci ci ci ci ci ay mbokk dëkkandoo. Mhm. kon book ñi nga xam ne aussi dañ leen atte mhm. te ñu war leen atte waat kenn du leen mën a atte waat kon book foofu lañ nar a toog ba lañ leen tegoon dégg nga alors ñu tëdd ko ba mu jeex kon ñooyu yëpp droit yi nga xam ne dañ koy violer moom moo ëpp moom moo ëpp lan li nga xam ne tey jii mu génne leen moom moo ko moom moom moom moo moo moo moo ko moo ko moo ko moo ko gën bon kon boog yaakaar naa ne que euh, war nañu déglu su fekkee ne que nee nañu nañ leen libere te nag naa leen wax lenn lu nit ñi xamul moom moo di képp koo xam ne dañ la jàpp nga nekk ci kanamu juge d'instruction donte topp ñu le crime crime moom moo di li nga xam ne que yoon daf la daf la tëj lu ëpp fukki atu kaso mm-hmm. bu fekkee ne li liñ la war a tëj warul weesu fukki atu kaso juge amul droit téye la foofu lu mot juróom-benn weer te waxul nañ la atte ji wala waxul nañ la libéré. Hmm. kon tey ji fii ak ñeenti weer fii ak ñeenti weer bu ñu jëlee téeméer bu ne juróom-ñeent fukk yi wala juróom-ñeent fukk ak juróom yi yoon moo leen di libéré su leen waree libéré lan lañ def dañ leen di génne kon te kon boog lu tax duñ leen teel a génne ñi nga xam ne aussi yoon dafa nekk dañ leen di atte wala ñu libéré leen est-ce que tey ji juge d'instruction yi war nañu. profité nga xam ne que enquête amul mënuñuy wax a kenn dégg nga bind ñoom ak procureur ñu d'accord ci seeni bureau ne nañ leen atte ji te mu leer leen ne kenn du leen mën a atte rien pour ñu toog kaso. Hmm. kooku man li ma leer moom moo di juge d'instruction yi duñ ko nangu te it gëm naa ne que procureur yi it ah ñu ci bëri it duñ ko nangu. waaw kon boog. Hmm. léegi ki nga xam ne que moom la fi yàlla teg te mu yor yërmande. Hmm. loolu lépp bu fekkee ne xam na ko man yaakaar naa ne que ah foog naa ne daal. dina ci def defaat dina yokkaat yërmande. am na ñu génne am na ñu génne daa. Hmm. wante dafa mel ni que. nga jël toq ndox dugal sotti ko ci biir bari ko. d'accord moom ngay euh, wax président de la république euh, jokkoo nga ci ak moom. ah bind naa ko daal benn bataaxal boo xam ne maa ngi koy ñaan yërmande. Hmm. yërmande bi nag ci yërmande boppam la. Hmm. ndax tey jii ñëpp xam nañ ne moom rek moom mun a jël fii def jéego bu rëy a rëy rëy moom retu ko mën. juge bu ne xëy na ay ñaar fukk wala fanweer walla téeméeri nit ngay mën a jéggal dégg nga ak xëy na léeg-léeg nga jàmbaarloo ci procureur léeg-léeg procureur am ci yërmande ñu jàll wante moom rek moo fi mën a génne ay junne junne junne nit. Mhm. kon dafa mel ni tey jii bu ñu nekk yàlla day baale. Mhm. tey jii yàlla moom la dogal nekk moom mooy baale. kon boog euh, loolu jébal naa ko te it euh, yu weesu yërmande mi won naa ko droit yi ma wax. droit yi bu ci ne. Mhm. ah wan naa ko ci xeetu xam-xam ne que droit la yoo xam ne que tey jii nii ñuy doxalee ci ak euh, nii ñuy doxalee ci ñi nekk kaso ñu ngi jalgati seen droit comme nag état de droit la su fekkee état de droit la te moom la fi yàlla teg pour que mu fexe ñu respecter loolu bu gisee droit yooyu ñu jalgati dina xam ne que li ma wax sànniwuma ko nii rek ci ngelaw dama ko teg it ci. fu leer ci yoon ak doomu aadama yi mm. nekk ci kaso yi. d'accord waaye maître sa euh, xalaat bi li ci tiital ñenn ñi mooy euh, ñi ñu jàppee ne xëy na ay band yu mag lañ bu ñu leen génnewee tey ñu dellusiwaat ci biir askan wi ndax mënuñoo itam jur musiba. ñu ñuy wax ne ay woyu yu mag a mag lañu bu fekkoon ne tey jii xayma nañ leen ci Sénégal yaakaaruma ne que téeméer bu ne mu weesu benn genn wàll walla ñaar. Mm. kon xam loolu moom du dara ñooñu aussi. li ñuy wax band yu rëy rëy rëy képp koo xam ne xool nañu yow fa nga jaar ba ba ngay def loolu nañ xam nekk lu ci gën a bëri juumte la wala accident la occasion moom mooy am loolu am wante yow du loo xam ne que ci sa dund war nga ko mën a calculer léegi nag du ñàkk ñoo xam ne que boo jëlee benn nga xaaj ko téeméer benn benn benn boobu téeméeram boobu mu doon ñoo xam ne que ñoom ñoo tey li ñu def ñoom ñoo ko soob ñoom ñoo kii mais ñooñu bu fekkee ne que nan la tuuti ñun suñu état bi tey yow mii di wax nii. Mm-hmm. bu leen neexee yow boo jógee sax dégg nga di dugg sa néegu sëy. Mm-hmm. ñu gis la. Mm-hmm. bu leen neexee ah. bokk na ko Sénégalais yi xam. dégg nga kon bokk loolu pour ñu contrôler leen maitriser leen surveiller leen. te état bi moo yoon sécurité bi. Mm. loolu warul tax ñu war a ciyee maanaam quatre vingt dix neuf pour cent en prison parce que dañoo ragal loolu. Mm. dégg nga te it nañu xam ne que euh, tey jii ñooñu bu fekkee ne que génn nañu état bi da leen di teg bët dina xam ne que ñii kat. war nañu leen ragal te ñooñu surveillance bi du garaaw ah. hmm. ni ma ko wax ça peut être zéro virgule deux pour cent ou cinq pour cent ñu ñu war a considérer comme véritablement li nga xam ne mun nañ leen. kon daal su ma la déggee maître li ñuy faral di wax ay bande organisée nangam ak nàngam criminel loolu taxawul. noo gis nga loolu euh, bés bu nee ma jooytu ko dégg nga procureur boo defee benn mu jël junni teg sa kaw bopp te loolu dañ ne politique criminelle la te politique criminelle boobu lan la. moom moo di que maanaam dafa mel ni que euh, ratisser large xaw ma nu ñu koy waxee. Mhm. Euh, ci ci ci wolof. Mhm. mooy maanaam dangay jël lu bëree bari bari bari bari bari di tànn ba xam yow ci lan ngay daj. Mhm. loolu nag du yoon nit ki la mu def nañ ko ko toppee rek bande organisée am na. am na bande organisée du ñu nekk amul amul mais boo xoolee même bande organisée yooyu ñuy wax en réalité pour que nga nga génnee nga dem ba génnee ni ko niñ ko niñ ko niñ ko jàppee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci xam-xam mm-hmm. lu jafe la lu jafe la dafa diñ koo xam ne sàmb jóge ne fële paate jóge fële dégg nga ngóor jóge fee mm-hmm. ñu daje ne eh waaw du dem tëji bitig bee mais loolu du bande organisée mm. déedéet kooku bande boobu elle est or elle est occasion la gis nañu bitig bi war nañ koo mën a toj dem nañu toji ko wante du bande organisée mm. wante yooyu yëpp bu ñu koy wax dafay jafe ci pour que nit ñi comprendre ko. kaawu Alex ak man nekkuma nekkuma ci lancé boobu. waa man ci jéego yi may dox jéego yërmande la. nañu yërmande. d'accord pour nga leeralal ñu foofu loolu la ñu at lépp yaa ngi joxe misaal band Alex ak Ino euh, même loolu aussi mënuñu ko jàppee bande organisée. non bande bande Alex ak Ino loolu dégg nga euh, dafa di loo xam ne que Alex ak Ino musuñu bokk dara dégg nga Ino dafa am ñu mu doon àndal. Alex dafa ñu ngi doon àndal te ñu topp dossier bi gis nañ ne que toujours nit ñi dañ doon changé moo tax ma ne occasionnel lu ci gën a bëri c'est occasionnel. Hmm. lu ci gën a bëri nit ñi dañuy changé tey ma pa ma ma dem wala suba ma paate la su fekkee nekk dem nañu ngaay nan la tuddati nan la tuddati dem la hmm. bu ñu demee nan la tuddati bu fekkee nekk ñu ngi ñu ngi Cees ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw nañu Cees ma paate la kon loolu du loo xam ne que. Euh, pour démanteler leen loolu lépp dégg nga euh, ça n'a pas été difficile bañ ci jógee dañ ko arrêté te gis ngeen fii bés bu ñu yégee ne am na ñoo xam ne ñu ngi Thiès wala am na ñoo xam ne ñu ngi ngaay saa ñu ci jógee buñ defee ñaari weer mu jeex kon loolu day wane une bande band bu organisée dafa di bande boo xam ne. Mm. ah pour que nga nga dàkkal ko lu jafe lay doon bu ñaan yàlla mukk ñu am ko. Mm. kon boog Uno ak nan la tuddati Alex. Alex musuñu bokk. d'accord. musuñu bokk. Mhm. te tey jii anamu tey jii Alex ñëpp xam nañ nekk père de famille la. Mhm. Alex tey jii boo ko gisee bu ñu nelawoon nekk kii musu nañ ko jàpp doo ko gëm. Mhm. parce que yàlla na ci yërmande. génn na dégg nga kan moo ko dégg. kon lii day wane que ne parfois gis nga li ñuy éduquer ak système de sertion sociale. dégg nga ak rééducation dégg nga yooyu yëpp dafa di loo xam ne que dañ ci war a jublu. dégg nga te ma ciy profité waa ah. ñu ci profité bon bien que du wax ji. bon ku mel ni buuba chinois. waaw nga moo ko défendroon naa ko buuba chinois. en mm. réalité. Mm. lañ doon wax yëpp ngelaw la woon rek. Mm. ngelaw la woon. dégg nga ba ma ko défendre dañ ko acquitté te liñ ko toppee woon addina lañ jëloon teg ko ci bopp. bu mu génnee ba tey est ce que dégg nañu buuba chinois kenn déggu ko kenn déggu ko. d'accord nga bon te buuba chinois ba mu génnee it lu ne def na ko. pour que ñu dimbali ko wutal ko liggéey. Mm. wala wutal ko ci lu mu dundalee njabootam mais kenn def ko. kenn defu ko. d'accord euh, wante yàlla dogal na ba tey jii kenn déggu ko. waaw kon boog nañu xam ne que juumte day am. d'accord te it bu fekkee ne yow la ñu xosi dafa metti mm. bu ëllëgee boo xosee noonu lay méttee ci keneen wante yow boo xosee da nga bëgg ñu baal la indi ci yow yërmande mm. kon boog buñ la xosee yow it na nga baal na nga am xolu muñ ak baal ak indi yërmande d'accord ñii nga bëgg ñu génn aussi maître nee nga euh, action publique duñ ko dakkal maanaam dañu koy ajandeegum rek ba euh, jamonoy coronavirus gi weesu loolu itam jar naa leeral waaw léegi am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne xëy na comme yow tooñ nañ loolu la yaakaar nga ne tooñ nañu la bu fekkee ne que génn nañu ci man ni ma ko ñaanee mhm. maanaam nan la tuddati euh, kenn dootu la warati mën a topp mhm. euh, ñi nga xam ne dañ leen libere dañ leen libéré provisoirement mhm. moom moo di que ci enquête lañ nekkoon wala dañ leen doon atte atte bi jeexul wala dañ leen atte woon ba daan leen ñu def appel xëy na sax dem nañu fa mbaxana doonee benn gis nga ñooñu ñëpp bu mbir mi weesoo dañ leen di woowaat continuer enquête bi. Mhm. continuer waat ak yi. ce qui fait ak ak yelefu ñi nga xam ne tooñ nañ leen ak yooyu réerul. d'accord dafa di loo xam ne que dañ ko naka lañ koy waxee dañ koo dañ koo denc ba ëllëg. Mhm. dañ koo aja bu ëllëgee ñu waxaat ko dañ koo at. waaw. waaw ah, man tukkuleer la donc <laughs> moo tax ngeen baal léeg-léeg li may wax du xaw a jub. baax na jub na maître dafa mel ni euh, lii euh, administration pénitentiaire jël ni ay mesures yow doyu la bokk na ci dakkal visite yi lekk itam dootul dugg ci kaso yi waaye personnel ba fay liggéey itam tënk nañu leen ci bërëb ba loolu yëpp kon jàpp nga ni mënta aar euh, ña fa ne. loolu naka la leen di aaree. feebar boo xam ne que subaana la moo raw ngelaw bon ku ko yor doo ko xàmme. mun nga ko yor ay ay fani fan kenn du xam ne yaa ngi moom nga nekk ak nit ñi mm. maanaam feebar boo xam ne ni jaan bu lay matt da lay bett bu lay fit wala jiit bu lay fit da lay bett mm-hmm. kooku moom est-ce que nit ñi war nañu toog rek di xalaat yenn xalaat yi surtout que nga xam ne que kaso yi ak lu mu jëlal rëbës jëlal rëbës foo xam ne que benn ju fukki nit dafa war a nekk ñaari téeméeri nit buñ fa nekkee ñooñu foog nga nekk feebar bi warul mun a jóge fu ne Ah, nañu bàyyi li ñuy def nañu indi yërmande ku fa tey ji sa mbokk nekkoon danga bëgg mu génn ci fitna bi mm. danga bëgg mu génn fii mm. lii du ay mesure mesure yi moom moo di nit ñi ñu génnee leen contrôler leen ñu dem ci seen njaboot confiné wu ñëpp mm. loolu moom mooy intérêt ñëpp mais ñi nga xam ne que képp ku nekk kaso dina am bés nga génn mm-hmm. kon bu ñu xaaree ba ba ba bone bugg foofu kenn du génn kon ñooñu ana seeni droit kon foofu lañ ko war a xoolee dégg nga mesures yi ñuy jël te it même boo nekk lekk du dugg mais <laughs> ñi nga xam ne que ñoom ñoo yor administration pénitentiaire wala seen xam-xam nàcc ci xam-xamu kaso xam nañ ne que kooku dañuy ñu ngi violer ay droit mm-hmm. parce que bépp détenu bu la neexee nga bañ a lekk lekk kaso nekk say njaboot nañ la indil nga lekk mm-hmm. kooku c'est un droit te Sénégal da koo signé mm-hmm. ci règle minimum pour les les les détentions en Afrique dégg nga ci ci les prisons en Afrique ci la ci ci la bokk. Hmm. bu ñu demee gëstu ko ci xam-xam képp ku ne kaso bu la neexee ne du ma lekk sa lekk. du ma lekk lekk kaso du ma lekk lekk buur li may bëgg moom moo di que ñu may indi lekk sama kër. Hmm. droit la ñu ngi leen koy xañ parce que c'est normal. Hmm. foog naa ne bu fekkee ne que dañu naan jub ñëpp war a jub bu fekkee dañu ne yoon ñëpp war a topp yoon. d'accord dégg nga kon bokk loolu bu bu ñu foogee ne loolu lii ci seen euh, ci ci ci droit ñi la ci détenu bi bu fekkee ne que moom lekk buy jógee këram foog na ne que loolu moo koy gën a aar que lekk bu ñu koy joxee biir kaso. Mm-hmm. nga xañ ko ko bu ëllëgee bu amee bu bu bu amee virus bi nag. tooñoo ko daa topp waaw. jërëjëf kon bokk daal nañ dellu ci yërmande rek. Mm-hmm. man ci yërmande laa ko teg. d'accord bu yërmande weesoo. am nañuy droit. ok téye leen foofu nañu xam nekk que ñu ngi jalgati seeni droit. Mm-hmm. d' accord jërëjëf maître Ciré Clédor li leer na ñu ngi lay gërëm di la sant. Ah, amoon na ñu mbégte ay ca la neexee. ah bu ñu génnee kaso tey jii li nga xam ne que ñu ngi koy mobiliser di di leen ko yóbbul kaso. waaw di leen di leen di leen sang. Mhm. di leen jox di leen jox pour ndox bi ñuy yàq foofu. waaw bu ñuy utiliser. Mhm. lekk bi ñu leen di jox. waaw alors que situation bi yëpp prévoir ñu ko. dëgg la dégg nga est ce yi nga xam ne dañ koy fay ñu koy jël. Mhm. di leen ko dundalee. est ce que loolu lépp. dana économie pour état bi. dana xaj feneen. dem xaj feneen de. jërëjëf leer na. <laughs> jaajëf maître Ciré Clédor Ly ñu ngi lay gërëm bu baax amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi. jërëjëf. jërëjëf maître ñu ngi doon jàmm.